Euh, Auguste Bruno Derneville trésorier adjoint de la chambre de commerce euh, de Dakar. aujourd'hui tey dañoo rencontré presse bi euh, lors du jour était de discuter sur certains petits points le premier point c'était sur la légitimité du président parce que bari na ay nit ñi nga xam ne ne président bi ñu ko élire baaxul ah dafa dafa remplacer benn gars bi fi nekkoon durant trois ans tout simplement ah mel dafa ñëw war a jël place am xamul ne élection yooyu. chambre kii euh, euh, euh, ministère du commerce moo ko organisé ak gouverneur de la région Dakar gis nga dara gënu woon leer élection yooyu élection yaa nga xam ne sur cent sur soixante titulaires yu war a voté trente-trois ont voté pour le président entrant et vingt-sept pour son challengeur mais kook amul lu gën a yomb amul dara ñaare ba ñu paree ils se sont donné la main Et ça, c'était avec l'onction du ministre, de nos ministres de tutelle qui était là, le gouverneur qui était là, qui, qui a vérifié les urnes, qui a vérifié les identités, compté bulletins yi benn par benn. lan la ñu bëggati on a remplacé un ancien président décédé mënuñu def leen loolu on a remplacé ce président là et on a dit par rapport au texte que en attendant que ñuy def la chambre nationale nañu def élection pour ñu am au moins benn président ak benn secrétaire général je l'avais oublié parce que le secrétaire général euh, benn euh, cabinet de recrutement moom moo joxe candidature am ak yenn ak yi parce que beaucoup de challenges il avait au moins dix challengeurs mais lui il est sorti de l'eau et ñun lu ñu gën a neex ci affaire bi moo di c'est une promotion interne parce que tout simplement le nouveau secrétaire général il a il a fait des ans de dix ans au niveau de la chambre de commerce donc bu ñëwee euh, cabinet bi euh, fal ko mais mënuñu ne kooku il a été mal élu bu ñu ne président bi tamit moom la Ablaye Sow moo nekk le nouveau président ñu fal ko ci anam yi ñu ko falee mais amul lu gën a neex ñu loolu lay xalaat deuxième point bi c'était le budget il y a des gens qui ont critiqué bi dañ ko yéex dañ ko mais au mois de décembre la ñu fal Ablaye Wade euh, je pardon la ñu fay Ablaye Sow au mois de décembre la ñu génne secrétaire général bi mais xanaa daañu lay bàyyi ba ñu toog am bureau mais ab Sow bañ ko falee bonom il n'a même pas de bureau son bureau là dañ ko doon defar il était en dessous comme bu fekkee ne simple employé la mais il a patienté il a attendu que bureau taxaw mu ñëw toog jéem a jéem a xool nag nan nan la liggéeyee ñu liggéey si budget pendant des mois mu am ñuy ne naan alors budget bi dafa yéex mais dafa dajeeg pandémie bi le président de la république lui-même il avait dit que réunion bu mu am kii di nekk benn institution publique mais saa am ñun ban maa xam la ñu am président de la république décrété affaire bi. nos nos nos nos experts sanitaires là wax ne réunion bu mu am ñun ñuy taxaw di def réunion pour quelle raison mais mënuñu tëdd assemblée générale mais ba ñu assouplir euh, kii bi nakati euh, mesures yi avec l'aval justement du ministre du commerce et du ministre du budget parce que ñoom ba ñu def pare budget leen ko jox ñoom ñu avaliser ko bañ ko avaliser ñu ko indi assemblée générale mais bañ ko indi assemblée générale gars yi naan budget baaxul mais si ñu voté ñëpp mais même bu amee ay abstention y a eu combien d'abstention deux personnes et lu ma naqari ci affaire boobu ces gens qui sont abstenus dina ñu dañu abstenir mais ils n'ont même pas pris la parole man ma xam liggéey naa ci budget bi man ak les agents de la CCAD mais man doon na man neex lool nit ñëw ne ma du ma voter budget parce que pour ëllëg si tax nga wax ma lu tax mais nga toog jàpp sa sa croiser sa bras jékki-jékki rek ñëw ne na man abstenir na mais ça ne se fait pas parce que ñun dafa am ña xamoo nañ ne am na ñoo xam ne dañu leen pour ñu bañ a adopté bi. kan moo nekk seen gannaaw parce que man man ki nekk seen ginnaaw mooy que nga xam ne moo nekk ci presse bi di façon boobu nag wax ma ko mooy Ibou Serigne Mboup nañu wax dëkk moo nekk ci presse bi di wax. lo mu ngi Kaolack. maa waxuma la sa taxi xaaral tuuti si taxi. texte yi la loi de 2017 15 moom moo tas chambre de commerce yi tas union nationale des chambres parce que union nationale des chambres mooy benn kuréel ba dafa tënk chambre de commerce yi pour jéem a coordonner seen ay activités ba ñu tasee chambre de commerce yi tas ko moom ci boppam on a redonné leur prérogative aux chambres de commerce les chambres consulaires mais moom foofu la foofu la mbiram jeexee donc ça se fait officiellement euh, d'après les règlement d'une manière réglementaire l'union nationale des chambres de commerce n'existe plus amatul amatul mais kon bu jógee naan mooy mooy président union bi jaaxal ban union ban président union union boobu amatul. est mais mbir mi yëpp mooy loolu tout à l'heure waxoon naa ko euh, il n'y a jamais de fumée sans feu boo gisee mu sonn ci nii xam na ne texte dañu ne léegi dañoo dañoo dissoudre toutes les chambres de commerce. du sur l'union de chambres dañoo war a créer une chambre nationale bu ñu créer une chambre nationale yeneen chambre de commerce day nekk des chambres régionales même des succursales mais Serigne boobu gisul boppam muy gérer succursale moom lu ko intéressé c'est Dakar donc loolu moo tax demande yu ma doon Dakar du woon demande yëpp pour toog fii ci chambre de commerce la mais ñu ne ko mais c'est un Sénégalais comme tout Sénégalais c'est un homme d'affaires bu fekkee vraiment dafa bëgg chambre nationale boobu muy mu yilif ko mais na porter sa candidature na bàyyi chambre de commerce Kaolack am na ñeneen ña nga xam ne ñoo gën a féete foofu ñeneen ñi nga xam bëgg nañu développer Kaolack mais bu mu baaree ñu ba noppi ñëw bëtam yëpp nekk fii na bàyyi Kaolack ñëw bu ñu toogee bu ñëwee carte d'identité fii wut fii kuréelam bu koy diriger bés bu ñu nee chambre nationale de de commerce bu fekkee mun na prétendre mu ñëw mais mais defu ko actuellement lan la lan la bëgg di ruux nit ñi dem leen tribunal neuf dossiers au tribunal. ci kan nga xam ne sunu collègue la sunu collègue en tant que euh, président d'une chambre de commerce Kaolack sunu collègue di ñëw tribunal noonu c'est pas galant de sa part li mu wax moo di même union bu fekkee da doon exister war naa am règlement intérieur bu fekkee moom dafa am problème ak benn président de chambre bu mu mënta doon mais nañu xool règlement intérieur nan la arranger problème bi bu fekkee kii di absenté peut-être am na ay sanctions bu fekkee du jox am na ay sanctions bu fekkee am na wax yu ñaaw mu am ay am na ay sanctions sans pourtant nga dem tribunal mbir mi. moo di sème la zizanie day jaxase carte gi buñ ko jaxasee ñëpp ne chambre de commerce chambre de commerce mu tas carte yi ñu bëgg ñu ñu rapidement teg si génn pour la chambre nationale mu jël bu fekkee présente mu jël benn benn pantem teg ko fi quoi benn suufifam teg ko fi bu ko neexee waaw bu ko neex mais nag saa bu mu jaxasee carte gi ñun ay nawleem la ñu quand même na nañu respecté ñu respecté man c'est un homme que je respecte mais nag comme ni mu waxee tout à l'heure bon bi daal moo rëy gën a rëy bi quoi waaw. Auguste Bruno Derneville euh, trésorier adjoint de la chambre de commerce de Dakar voilà merci beaucoup. Merci euh, bien, c'est Mbargo Badiane, président de la coopérative nationale d'entreprise de transport de marchandises. Euh, qui est la charge de renouvellement du parc des gros porteurs, également président de l'Union sénégalaise des transporteurs routiers et vice-président de la Chambre de commerce de Dakar. La rencontre d'aujourd'hui, c'était un déjeuner de presse que nous avons décidé pour répondre à certaines allégations de certains gens mal intentionnés de, de, de, de la situation de, de la Chambre de commerce et qui donnent un gaz euh, insolite pour la chambre de commerce, or que la chambre que les membres de bureau membres de collège sont unis, ils sont tous euh, 60 euh, titulaires, les 58 ils sont votés pour le budget de la de commerce. Il y a un contre et euh, également. qui, est, qui étaient seulement ils, n'ont pas le droit de voter, sauf s'il y manquant. Mais malheureusement, euh, heureusement donc tout, le monde était présent. Les gens, ils ont pris le, le temps de venir pour, pour, se présenter et voter le budget de la Chambre de commerce de Dakar. Donc, on n'a euh, de commerce travaille correctement. Euh, par rapport à, à ce qu'il se dit quelques, quelques, quelques gens, le, le, le, le problème qu'ils posent à la Chambre de commerce, c'est leur idée. Parce que ces gens-là, ils sont ni membres du collège, ni membres de bureau. il ne font pas partie de la, de la, liste de la Chambre de commerce. Donc, euh, tout ce qu'ils disent à la Chambre de commerce, c'est peut-être leur idée, mais ce n'est pas la réalité de la Chambre. président Union sénégalaise des transporteurs routiers mais président coopérative nationale d'entreprise de transport de marchandises également mais yore charge yu renouveler parcours Sénégal bu gros porteurs yi ci ci décision boobu laa nekkee membre de bureau euh, ci chambre de commerce de Dakar. mooy li ma la wax rek dañu defoon tey déjeuner de presse pour woo presse bi xamal leen ne li ñuy dégg ci mbedd yi. ay wax yoo xam ne mi ngi jógee ci ñenn ñoo xam ne dañoo dañuy wax seen xalaatu bopp rek ak ils mal intentionnés di adressé lu leen neex ci chambre de commerce loolu dara amu ci dara du ci dëgg ndax benn bi mooy ñi koy wax du ñu membre chambre de commerce de Dakar am na ci xam ne bokkuñu ci collège chambre de commerce de Dakar bokkuñu sax ci beneen chambre de commerce kon lu ñuy wax ci chambre de commerce dañ koy wax rek parce que dañu bëgg a wax am na ñoo xam ne nag dañu bokk ci beneen chambre de commerce Dakar mais seen bët ñu teg ko ci dañu bokk ci beneen chambre de commerce mais seen ko ci chambre de commerce Dakar te ñu ngi seen chambre de commerce la fa nekk ñu war koo wax waxuñu ko la nekk ñu war koo def defuñu ko li am ci chambre de commerce Dakar pratiquement lépp am na ci chambre de commerce yooyu bu mel ne Kaolack am na Pont Bascule am na port am na traversée Gambie am na cœur de ville am na yeneen ak yeneen yoo xam ne duñ ko tudd léegi waaye bu jotee dañ ko wax te yooyu yëpp mi ngi dox ndigalu kenn wala ci turu kenn wala ci mbooloo moo xam ne mosuñoo dajee comme cœur de ville de Kaolack kenn mosut leen a gis ñu am assemblée générale wala ñu dajee sax waxtaan lan moo fay génn lan moo fay kii mais am na ñu ko accaparé woo di ci dox seen soxla di ko fa di faj seen soxla ci turu ci turu parce que ñoom ñooy président chambre de commerce de cité yooyu. kon nag ñun ñu xamal leen ne chambre de commerce Dakar amul benn problème mosu ko am ñun ñi fi nekk ci membre de bureau yi. ñi fi nekk di membre collège bi suppléant yi ñun ñëpp ànd nañu woote budget bi ci cent cent membres yi fi nekk nga xam ne soixante yi ñooy titulaire cinquante huit yëpp woote nañu budget bi suppléant yi également étaient présents ñoom ñëpp d'accord nañ ci budget bi kenn moo ci am contre ak benn abstention donc budget yooyu wax dëgg yàlla amatul benn problème jërëjëf